tey di mercredi 24 août ñoo toog fii ma ne yéen waa Ndakaaru ñoo ngi nii ñun magi Pastef ñoo nañu yéen waa Sénégal ñoo ngi nii ñun magi Pastef ñëw nañu yéen waa Afrique ñooñu nii ñun magi Pastef ñëw nañu nous nañu pare nañu président Ousmane Sonko notre président du parti les patriotes africains pour le travail l'éthique et la fraternité Pastef les patriotes ñooñu nii ñun magi nous ñëw nañu tey jii saal bi karaw yu weex bare na fi sikkim yu weex bare na fi lu war a am la parce ñun ñooy mag yi Pastef dañoo ñëw pour wane wu wane ne Pastef ay ndaw ci nekk waaye mag ñaa ngi ci biir du jeex tey jii wane na ko xëy na am na ñoo xam ne tey bu ñu seetaanee tere ba image yi dañ naan ñii ñoom. mag ñi lu ñuy def si politique lu ñuy def si politique ñii mu ñoo dem toog jël seen kuy di di ñaan yàlla mais ñun dañuy def politique dañuy def politique ndax lan mooy politique politique mooy taxawu sa ñaar ne moo ci nekk taxaw bu baax wala taxaw bu bon ñu ne ci taxaw bu baax bi lañu bugg a taxawoo muy ci ginnaaw

ci pas ginnaaw Pastef magi pasteur. Ousmane Sonko dafa ci réew mi lo xamné kenn musu gis réew mi partis politiques donc on a 400 dirigeants mais amul kenn ci ci Sonko la euh, euh rebelle

dafa laal dencub jàmbur ci am fisam xam-xamam ak jaar-jaaram dafa dem jële politique ci langu yëngatu politique ci langu politique yóbbu ko ci langu koom-koom foofu la laal laa nag foofu bañ li ko li koy teg ci deram li ñu koy waxal yépp loolu moo ko indi dafa indi beneen politique beneen yëngu-yëngu politique dafa jëmale politique ci koom parce que moom inspecteur des impôts et domaines la politique bu bees politique scientifique la ñu taxawal teg ko ci politique pop bi fi nekkoon politique caaxaan politique càcc gi fi nekk loolu di indi jë jigéen loolu moo tax ñoom bë mënuñu ko bëgg te duñ ko bëgg tey duñ ko bëgg suba ba ba ba ba bu tëdd wal duñ ko bëgg parce que moom dafa jaar yoon woo xam ne. Il dëgg la nous science xam-xam la des politiques bu baisse. Donc il faut nous comprendre Nous avons nous nous ñu ñu ñu cinq, ko cinq, ko faut du dégg ndax dafa dafa dafa politique là là, la il faut nous rappeler histoire une xilaasu réew dafa am indépendance xamné lu grave grave la parce que ba ñu ay négocier indépendance dañ ko def ñaari patch transfert de compétences ak accord de coopération ñi xamné ñom ne accord de coopération dañ ko dañ ko nëbb dañ ko gas dañ ko signé mais dañ ko gas suul ñu ci rek compétences yi président de la république

parce que dafay leeral dafa indi beneen politique dafa laal ab denc te li ko indi mooy dama leen di wax ne monsieur Debré bi nekkoon premier ministre général de bi ñuy def négociation daf ne dafa dajeeg Léon Mba bi nga xam ne moom waroon nekk président bi Gabon mu ne ko je on donne l'indépendance mais à condition que l'État s'engage, une fois indépendant, à accepter les accords de coopération signés. Voilà, le loir, mais les, deux systèmes, indépendance et accord de, de coopération, vont ensemble. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Il faut, a des gens qui ñaar ñi waaye wala doo am indépendance Nous ñu jël ba nga on nous, un accord 4 avril 1960 ñi si desoon nous, Afrique doom Élysée Par exemple, le général de Gaulle Nous sommes bëgg indépendance nous, indépendance ne ko Foka ils veulent l'indépendance qu'ils la prennent mais foofu aussi dafa def benn condition veille à ce tout ce petit monde reste dans le giron de la France bu ñu amee indépendance ba léegi loolu muy wéy ba fii ma taxaw di wax mooy ñaari moo fi nekk mooy accord de coopération moo ñu tënk benn doomu Sénégal ci gëstoom ci xam-xamam ci bëgg réewam ci bëgg Afrikam ne damay jógee ci transfert de commun maa ngi jëm léegi ca accord de coopération yi ñu changé loolu mooy comme ni ko waxee ci premier chapitre livre bi mu publié daf ne fa mu commencé la ko indi yëpp à l'origine di mal li indi métier bi c'est le système système boobu mooy accord de coopération. moom mi yëngal loolu du ko bëgg te nag tant que defuñu li so li li li président Ousmane Sonko wax Sénégal du du benn centimètre benn centimètre du ko bouger loolu la su ma gis nii ma bëgg a woo magi Sénégal. góor ak jigéen ñu seetaat seen bopp xalaat waaw ñun mag yi Pastef ñoo ngi woow mag yi Sénégal góor ak jigéen dëgg la cin bu tàkkee tey ci kër yi mag ñi la ku feebar tey ñëpp hôpital mag ñi la xale yi jàng mag ñi la lu lu yëkkati ci àdduna mag ñi la

Je disais, je disais dès le premier tour. Dès le premier tour, pour que après. Parce que. Deuxième tour, il faudrait gagner même l'histoire de Yudo, il dit l'a déjà on l'a appelé, on l'a appelé. Pour vous dire que c'est de ma fuir, de ma fuir, de me fuir. Il faut vous dire dès le premier tour.

ñun tam fi ñu nekk en tant que mag ñu jàpp si waaw mag ñi ma woow Sénégal ñoom tam ñu jàpp ci jàpp ñu mag nag dafa bari façon lu ne am na si wax nañu fi ay kurus wax nañu fi ay kaami wax nañu kii wax nañu waxtaanee sa njaboot waxtaanee ko nekk ci ci biti réew ma yóbbu sa njaboot di dugg ci biir parce que bu mënta ñëw loolu yëpp mën na nekk dañ ci jublu pour que suñu objectif focus 2024 bu keegee loolu moo tax bi mooy ñetti yooyu yoo xam ne mën nañu may li wax léegi dañ naan pass teef Sonko président pass teef Sonko président nañ ko dëkkal dee suba ci réunion yi ci rencontre yi nañ ko dugal ci marché yi nañ ko ci réunion pass teef como pour son président candidat à partir du mois de septembre le premier dimanche de chaque mois

ñaari yóbbante yooyu la ma la ma la ma lañ ma indi ko nag bala may daaneel dama yóbbante rek sama nawla yi ma nekkaloon ci benn parti bu mag muy yoonu askan bi yëri mooy mii moo ko jiite ci liggéey ay ati at ba dugg yoonu askan bi nag li ci nekk mais jiwu la boo xam ne dañ ko tànn bi arrêté fi ñuy wax semence sélectionnée yaakaar naa ne dañ liggéey bu liggéey bu réeree ci Pastef ma ne Pastef moo moom Sénégal à partir de 2024 dafa incha allah